yégle leen naan nguuru yàlla aji kawe ji jegesi na faj leen ñi wopp dekkal ñi dee faj leen gaane yi te dàq rab yi cig neen ngeen ame maye leen cig neen bu leen dajale wurus xaalis mbaa xàññeet ci seen maxtume buleen leen wut it mbuus ngir tukki mbaa ñaari turki ay dàll mbaa aw yet ndaxte liggéeykat yeyoona dundam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 yégle leen ko ci kaw taax yi te bu leen ragal ñu mën a rey yaram te mënuñoo rey ruu waaye ragal leen ki mën a sànk yaram ak ruu ci safara ñaari picc ramatu ndax duñu ko jaay ci dërëm waaye benn ci ñoom du daanu ci suuf te soobul seen bàyyi seen kawari bopp sax waññees na leen kon bu leen ragal dara yéen gën di raanu ramutu